xam nga fu nga jëm day day difficile pour nga bokk c'est-à-dire da ngay gis ay proportion canapé yu bëri bëri bëri bëri waaw c'est vrai que loolu ñu ngi koy wax man nag bon peut-être dugguma ci man di gisaguma ku ma proposer proposition canapé parce que pour ma ñu ngi koy poser mooy ñi nga xamante ne mënuñu li ñuy def pour man soo mënee li ngay def kenn do la proposer lu ñak fayda mm. donc man bu fekke dañ mako proposer bayuma ci sax xel ay retane sax lamay def man donc du coup dama gëm sama talent man xaaruma ci kuma ci jappalé donc du coup man lepp luma am dama ko ci defal sama bop est-ce que du gëm-gëm bu nga am wala tay gëm-gëm bu nga am sa bop mm. motax mayo len kanam pour ñu proposer la wa xam nga bo nekk ci jigen nekk ci milieu bo xam ne dafa bëri goor donc euh, c'est vrai que dañ toujours trop de caractère mën ah, mais du lu négatif pour man négatif et puis tamit lu jot yomb ah, aussi lu jot yomb concurrence avec personne aussi samay di di bari aussi mën na concurrence mhm. est-ce que Japon ni concurrence baax man moom suma philosophie personnelle man je man je ma je lol pour man franchement ça vaut même pas la peine franchement je je pense pas que ni ni ça ni fi nekk di concurrencer je pense que xanaa ku nekk sa monsieur bi boobu war la doy quand même. parce que tay man si li ma jàpp. Mhm. mooy concurrence baax na ci mhm. ben côté. Mhm. c'est-à-dire kay nga jugandoo tay man ni ma gëm moy tay dama am un million suba dama am un milliard. Mhm. c'est-à-dire si gëm-gëm. Mhm. mais concurrence day tax yow nga gën a avancer dem ci kanam. je ne pense pas en fait pour man euh, la personne euh, waroo xool ci nit parce que mi avancer rek nga ne oh coûte que coûte que man dama war a def tout loolu loolu en fait. tek bët nit ki lay don donc du nek sa volonté wu bopp donc sa volonté wu bopp yow pour yow intérieur de toi ma nga war a toog ne man dama war a réussir dama war a li may def nii dama ci war a dañ ma si war a dégg mhm. dama war a am li mais pas que nit euh, avancer non non il faut ma ma topp nit kii pour avancer ton parce que tamit loolu aussi soo ko soo koy xool mën na la pousser à nga iñaan Nous la pousser ak euh, euh, soxor wala la négatif dans parce que quoi qu'on puisse dire dafa bëri doole. dëgg la côté il faut faire très attention. dëgg euh, côté boobu ba tey laay focus. Mhm. mooy tey concurrence bi yaa ngi si showbiz bi. gis nga tey Wally gis nga mhm. Sidi Diop donc gis nga El Hadj ku mhm. nekk di bëgg jiitu ban jangat nga am côté boobu quoi. non je ne pense pas que ku nek bon ku nek nak comme domaine bi nga nek bëgg nga nek paix. Mhm. ku nek domaine bi nga mënti nek bëgg nga euh am ci dara mais je ne pense pas que lolu concurrence la parce que tamit quoi qu'on puisse bëggoon tamit di nekk ouais ba pare di jël quand même <laughs> te yow sa animation bi ngay def bëggoo si quand même bëgg nga si am ay Grammy bëgg nga si am ay ay médaille quand même donc peut-être dans les yeux des gens mon nañ jàpp ne concurrence la que du concurrence gëm sa bopp la bëgg voilà yo tamit nga wane ne yo mën nga man pour man loolu la mais tey boo booy jàngat parce que nag yaa ngi si internet bi. Mhm. yaa ngi xool yaa ngi gis tey ban jàngat nga am ci diggante Wally ak Sidi Diop. côté boobu na wax dëgg fa yàlla dama ci neutre parce que man gisuma si côté bu négatif ñoom ñaar ñëpp a mën a way bu Wally sama gaayen la si di pareil sama sama gaayen la donk ku nekk mi ngi bay waaram. j'ai pas vu de concurrence parce que nous ñaar pas de talent c'est c'est ils font partie de mënoo tudd musique sénégalaise de l'université. donc c'est normal c'est normal parce que loolu ci ci aar la bokk day ne boo demee sa comédie la des def comme ni ngeen des dañuy concurrence si di si si du pour ku nekk mën a may sa ça sa morom doole j'ai pas compris non da nga comédie

i fekke woo am ba